bonsoir à tous et ñu ngi am mbégte di leen retrouver ci seen euh, magasin 7TV euh, Soir l'invité de 7 waxtu wi jot na nag sunu gan yegsi na ñu am plaisir di recevoir ci plateau bi Charles Émile Abdou Ciss il est administrateur civil nekk coordonnateur ëllëgu euh, Sénégal bokk coalition Diomaye président monsieur Ciss ñu ngi lay nuyu. merci beaucoup maa ngi leen di remercier vraiment ci invitation bi et di rafetlu taxawaay bi ngeen am ci wàllu euh, information ci biir Sénégal. jërëjëf di la sant bu baax a baax c'est un plaisir pour ñun euh, bu ñuy wax euh, rigueur ci wàllum administration ñu bëri il donne votre nom nga ànd ak la coalition Diomaye président ngeen gagné élection présidentielle li nga xam ne moo amoon. tey jii depuis qu'il est installé 40 jours de fonction amagum na ko ay acte posé na ko par rapport ak li nga gisagum dans un premier temps en résumé ndax jàpp nga ne ci bonne direction bi. waaw effectivement parce que coalition Diomaye président dafa am benn euh, charte bu ko lié. Mhm. képp ku dugg ci coalition bi da ngay signer charte boobu mais balaata ngay signer charte bi da ngay dugg ci programme bi nga xool ko te li ci piir programme bi moom la ñuy fësal actuellement. Mhm. maanaam lépp li ngay gis ni publication rapport yi partage information yi dafa nekk. ci li ñuy wax naan charpentu programme bi parce que charpente bi mu lay mooy soppi doxalin bi mhm. charpente bi mooy partage information yi nga xam ne képp kuy sénégalais war ko ko am loolu dafay yoxu kóolute citoyen bi ak ñi nga xam ne ñoo koy jiite mhm. dafay tax ñu jox ko confiance bi ci des dafay gën a jegele citoyen bi ak information bi loolu mu ngi ci partie bi ñuy wax le renouveau institutionnel mm-hmm. mu ngi aussi ci bu ñuy xoolee pàcc yi gën a ndaw yi am na foo xam ne ñaan le rétablissement de la confiance des usagers vis-à-vis de l'administration mm-hmm. loolu yëpp dafa bokk ci charte Diomaye président voilà bokk ci programme bi ñu daan programme euh, souverain. Ah, aussitôt euh, élu à la tête de ce pays on a que ne euh, li ñu njëkk a taxawal mooy fexe ba avoir une administration efficace te pour loolu am il faut que ñi nga xam ne ñooy liggéey ñu ñëw à l'heure wàcc heure mais également di joxe li nga xam ne mooy le meilleur de euh, par rapport ak euh, pointage bi jàpp nañu ne une bonne chose mais est-ce que ça suffit réellement pour aller de l'avant waaw euh, pointage dafa nag ci modalité organisation liggéey. Mm-hmm. Euh, ñun ba ñuy nekk solde bokk na ci lu ñu commandé woon yaakaar naa après ki fa nekk eggali na ko. Mhm. pointage dafay tax ni ki xam ne war naa xëy heure wàcc heure mais du loolu rek mooy joxe résultat liy joxe résultat programme Diomaye président wax nañ ko. Mhm. fësal ko mooy instaurer culture gestion axée sur les résultats maanaam régulièrement ngay fixer ay objectifs administration bi. régulièrement aussi nga leen di jox ay objectifs à atteindre mm contrat de performance xëy na loolu dinañ ci ñëw mm-hmm. mais fësal nañ ko ci programme bi te insister nañ ci aussi pour que contrat de performance yi ñu généraliser ko au niveau de l'administration doo fal rek ne ko acca euh, doxalal da nga ah yow de fal nañ la yaa ngi ci wàllum euh, gerte bi gestion des semences mm-hmm. lii lañ la sant ci objectif après nga daal di rendre compte ci loolu nga xam ne moom lañ la assigné ci objectif ñu publier rapport bi aussi citoyen xam ko mm-hmm. balaa ñuy publier rapport sax xëy na citoyen secteur bi nga xam ne moom la nekk muy wàllu justice wala wàllu agriculture wala wàllu santé dina sax mun a évaluer ñi nga xam ne ñoo yore secteur boobu mm-hmm. donc généralisation contrat de performance gestion axée sur les résultats ak digitalisation dafa bokk ci ponk yi nga xam ne dañ ko fësal ci programme Diomaye Président ah. notamment la partie renouveau institutionnel ah c'est important mais avant d'aller euh, ci euh, par exemple euh, wàllum résultat laaj ko kiy liggéey est-ce que amul lu ko jiitu maanaam l'audit du personnel ñiy liggéey déjà ñu xam ba xam ku ci nekk fa nga nekk baax na ak aussi ba xam euh, niñ la recruter yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne mën na tax bu baaxee bu tegoo ci yoon performance mën a mën a suivre effectivement loolu aussi bokk na ci ponk yi gën a am solo audit du personnel audit de manière générale mhm. ak mise en place benn dispositif d'audit xam na benn benn émission bu mu la wax naan euh, sol dañ fa tegoon li ñuy wax naan benn mhm. dispositif de contrôle <laughs> nit ñi di ñaxtu fekk na loolu dafay prévenir jafe-jafe yi ñuy gis fan yi mhm. ci wàllu rapport yi ay yoo xam ne da ngay xam ne xel ne lii eh, ni waaj a doon gérer jaarul yoon mhm. salfaañe na ne moyens yi ñu objectif bi eh, eh, structure bi jaxasoo na ci programme Diomaye président aussi loolu dañ ko dañ ko institutionnaliser maanaam audit yi boo xoolee programme bi audit def ci daf ci ñëw de manière répétée mhm. audit des effectifs audit de la structure mais audit bi am na lu ko précédé maanaam moom nga identifier risques yëpp yi nga xam ne moo nekk vraiment ci biir structure bi boo ko identifier nga daal di xam ku ca nekk ci ci risques yi. Mhm. Euh, lan la mën a ànd ci jafe-jafe yàqu-yàqu nga fexe nag ba di éliminer risques yooyu ndànk nag mhm. loolu yëpp mu ngi ci programme bi programme bi bari na ponk yoo xam ne. Euh, xam naa ne ci peut-être jamono yi. Mhm. liggéey bi tar na mbir yi metti na. mais baax na agent bu nekk ci administration bi mhm. mu liir bu baax programme bi parce que ah. approprié wu ko il faut que d'ailleurs ñu def ay séminaire pour approprier wu le programme ah. parce que bari na ponk yoo xam ne point yoo xam ne ci wàllu réforme administration mhm. mu ngi ci déjà ah, bokk na ci seen euh, mbébét bokk na ci seen euh, bëgg-bëgg xeex guerre corruption mu euh, may poussé ci euh, lan moo nekk dans l' administration euh, le le plus le plus grand ennemi l' administration lan la. corruption. Mm-hmm. li gën a tardel administration mooy corruption. loolu aussi vraiment ponk la boo xam ne priorité lañ ko def ci biir programme Diomaye Président. Mm-hmm. lutter contre la corruption. parce que corruption suba ba ngoon boo xoolee booy génn sa buntu kër. ba ba ngay wàcc. da ngay gis des forme de corruption. c'est partout rawat na ci administration. Mm-hmm. loolu nag euh, courage politique bu muy bu muy euh, bu muy laaj déjà mu ngi ci gouvernement bi président wane na ko premier ministre ak euh, agent yi nga xam ne ñoo chargé de l'exécution. Mm-hmm. gis ngeen Thiès. liñ fa gis ci wàllu suuf si président ci boppam mm-hmm. moo wàcc ne lii mënul mënul nekk mënuñoo seetaan ñaar ñetti nit daal di akimoo suufu sénégalais yi mel ni Sénégal amatul souveraineté donc loolu forme de corruption yooyu dans le domaine foncier mhm. loolu bokk na ci ponk yi ñu war a yi ñu war a fësal fexe ba éradiquer ko ah mais dans l'administration euh, corruption bi li koy indi souvent xëy na bokk na ci agent yoo xam ne euh, euh, seen seen seen na ko mën expliquer seen am am demeewul noonu alors que dañuy nekk ak contact bés bu nekk xaalis bu bëree bëri foofu aussi ñu jàpp ne dafa xaw am ay inéquité diggante agent yi ñenn ñi am lool ba jéggi dayoo ñenn ñi nag nga xam ne ils sont exposés euh, comme ci wàllum corruption gerbeeg yooyu noonu alors qu'en retour les les revenus ne ne suivent pas. waaw corruption moom en état d'esprit la rek gis nga liñ fi gis fan yi ci rapport yi. Mhm. wane na ne corruption état d'esprit la. parce que ñu ñu koy jiiñ wala ñi nga xam ne vraiment dañu wane euh, seen implication ak responsabilité. Euh, ci détournement yeeg jafe-jafe yi ah pourtant ñoo xam ne ñu fës lañu. Mm-hmm. ñu amoon euh, daraja. ñu am ndomba tànk ça veut mm-hmm. ñooñu ñàkkuñu. parce que ku mm-hmm. xam seen salaire xam ne ñii ñàkkuñu mais état d'esprit la état d'esprit boobu nag moom la ñu war a changer. ci agent de l'administration yi te processus boo xam ne la dafa war a jël temps processus boo xam ne dafa laaj sensibilisation bi ci des aussi effectivement am na agent yoo xam ne loolu mun nañ ko wax euh, ci wàllum rémunération Euh, quand même xaw nañu new doole. parce que souvent seen i ñaxtu yu ci njëkk ci loolu loolu lay jëm. ci loolu lay jëm effectivement moo taxoon d' ailleurs ñu entamé woon processus vraiment de mise à niveau euh, processus euh, rééquilibrage rémunération diggante agent administration fexe euh, du ne ñëpp ñoo war a tolloo salaire loolu mënu nekk. Mhm. mais ki nga xam ne mu ngi liggéey di ci daj yenn coono yi ñu mën ko jox akam. loolu moo waraloon amélioration rémunération enseignants yi. Mhm. te loolu dafay continuer. gis ngeen fexe ba boobu nga xam ne euh, moo tax administration aussi nit ñi mën am vraiment benn boo xam ne. Mhm. xaw a ko loolu ça demande des des revenus euh, pour le pour le pays Sénégal est que taxaw na ci loolu pare na pour am ko. wala fi jëm daal na xel. Mm-hmm. parce qu'il faut étudier pourtant baal ma doguma la le prédécesseur de Diomaye le président Macky Sall il l'avait fait ba xaalis bu bëree bari yokk ci enveloppe bi euh, bi état du Sénégal di fay mooy augmente tax mu am solo ci enseignants yi. waaw mais mbir mi dafa mujj jaxasoo waat. Mm-hmm. ndax gis ngeen bu yàggul dara président de la République jël benn mesure supprimer ay salaire ak indemnité yoo xam ne président Macky mu ngi ko def. fin mars Euh, jël ay ministres jox leen salaire à vie. Mhm. loolu la mujj def te di président euh, Diomaye Faye jël na décret daal di koy dindi ba mu set wecc mhm. loolu bu daloon ci kaw masse salariale euh, vraiment kenn xamul fan la ñuy mujjee. Mhm. mesures yu mel noonu nag am na ci yoo xam ne il faut ñu simpi ko ci masse salariale. am na ci aussi jafe-jafe yoo xam ne ci wàllu budget bi la nag il faut ñu auditer budget bi au fond dugg ba ci biir budget bi. dindi ci yoo xam ne amul njëriñ askan bi fexe aussi ba orienté ko ci loo xam ne amal na njëriñ askan bi anam ci wàllu semence wala xëy na yenn subvention yi nga xam ne dafay jàppale askan bi ci wàllu dund bu cher bi wala it ci dépense yoo xam ne euh, boo analyser di nga xam ne ne lii amul benn impact ci li nga xam ne moo war a améliorer dund doomu adama qu'appelez-vous dépense yu amul njëriñ mooy dépense de prestige yi wala des indemnités indues train de vie de l'État lan la yooyu yëpp a ngi ci biir yëpp ñu ngi ci biir am na dépense yoo xam ne tey bu ñu contexte bu ñu toll boo xoolee par ci wàllu séminaire war nañ ko mën a wàññi mhm. boo xoolee aussi train de vie état ah, ci wàllu carburant wala ci yeneen fànn yoo xam ne ah, ay déplacement la à l'intérieur du pays wala à l'extérieur aussi war nañ ko mën a wàññi mhm. boo xoolee aussi yenn dépenses yi nga xam ne acquisition de de de de de matériel yi nga xam ne c'est pas indispensable ñu ngi jëm ci wàllu digitalisation. loolu aussi war ko mën a wàññi. Euh, xeetu dépense yooyu ak projet yi nga xam ne aussi euh, parfois dañ leen di surfacturer. parce que mm-hmm. loolu feeñ na ci rapport yi day gis projet yoo xam ne lenn ne njëg bi ñuy wax ak ni muy waroon demee am na écart bu rëy. Mm-hmm. maanaam dañ cee yokku. Euh, te yokk boobu xam nañ ci ay poche nit la jëm. loolu aussi bañ ko analyser mën na andi économie. dafa laaj étude bu bu xóot hmm. pointu boo xam ne di nga mën a génne ay ay ay ay ressources budgétaires fu nekk hmm. fexe euh, ba orienté ko ci fi nga xam ne foofu lu population bi di xaar maanaam ci dund bu cher bi wala ci ay dépenses euh, ci wàllum euh, tabax école tabax aussi infrastructure de santé wala it ameliore yenn ñi nga xam ne ñu ngi xaar boobu léegi ñu ñu améliorer seen salaire. ce qui est triste ci rapport yi mooy que ne li ñu gis mooy euh, ñu bëri seen i euh, forfait wala méfait dañ ko def ci benn période bu xaw a yàgg est-ce que ci administration amul ay jumtuwaay yoo xam ne dina éviter que nit ki bu nekkee ci lu dëng mu yàgg ci lool bay lor Sénégal. mais justement loolu moo tax ñu ne baax na ngi def ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari levier. Mhm. benn levier bi mooy ñu institutionnaliser audit cest il faut chaque structure ñu koy auditer au moins deux fois par an je dis mm-hmm. au moins ñu baña xaar cour des contre rek ñëw di def audit annuel am mm-hmm. mais loo dafay laaj nga institutionnaliser dispositif d'audit interne avec benn bureau d'audit interne bureau contrôle de gestion parce que loolu dafa war a dugg ci organisation administration mm-hmm. nga fexe aussi ba identifier risques yi nga xam ne mooy andi détournement mooy andi jafe-jafe yi mooy andi ñuy salfaañe deniers publics nga fexe aussi ba régulièrement ci beneen levier bi ñuy analyser performance yi nga xam ne moom la nit ki war a am ci fiñ ko falee doo fal nit rek benn yoon nga bàyyi ko muy liggéey cinq ans mm. trois ans wala yoon chaque année da nga ko war a évaluer mm-hmm. yow li ma la dénkoon ci wàllum gestion ci wàllu objectif fan nga ci toll mm-hmm. euh, at bi sax sori na ñun euh, solde chaque mois dañ ko daan def. chaque mois pour ne pas dire chaque semaine. Mm-hmm. nga xool fan la waa ji toll. et ça a dérangé waaw ça a xam nga sénégalais bon ñun ñëpp a bokk waaye bëggul nga koy koy teg loo xam ne fa mm. diis te fekk na loolu du pour yow pour réew mi la da ngay bañ rek euh, mu euh, aakimo wala nelaw ci li nga xam ne moom lañ ko sant ci mm-hmm. wàllu objectif ah, ah. état du Sénégal nguur gi bi pas ni mu bindoo ban jàngat nga ci am parce que euh, c'est la première fois wala ñaareel yoon ñu am président bu fort ak premier ministre bu fort parce que bon le premier poste ak ki muy posé il il dans l'initiative nekkul rek kenn koo xam ne président da koy joxoñ mu muy xool loolu mën na nekk atout avantage pour Sénégal comme am nañu jàpp ne aussi mën na indi benn problème ci bicéphalisme euh, ci euh, ci ci ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw. waaw euh, yaakaar naa mun nañ ko bañ a xoolee foofu. Mhm. parce que Sénégal fi mu toll dafa soxla bépp doomam boo xam ne am na xalaat bu rafet am na taxawaay am na aussi sens de l'initiative nekk président mooy jiite mooy donner orientation yi premier ministre. mooy euh, mettre en place di aussi en fait fexe ba orientation yi ñu koy exécuter. Euh, kooku euh, effectivement baax na mu am yenn dayo yi baax na aussi mu am sens de l'initiative ak ni ñu ko xamee sens de la responsabilité. Mm-hmm. ministres yi ñu fal aussi gis nga ci bari na ci ñoo xam ne vraiment euh, tey lu bare bare bari ci seen secteur déjà defoon nañ ko maanaam dañu nekk référence ci seen secteur loolu dafa baax ci réew aussi. c'est et même ci poste directeur généraux yi bari ñoo xam ne tey vraiment am nañu capacité pour mener. objectif yi fi ko réew mi di xaar. loolu aussi euh, homme du sérail ku ci nekk ci voilà da nga ko xam homme du sérail wala mhm. boo nekk sax homme di sérail nga am compétence bi. wala nga am taxawaay wala honnêteté bi. Mhm. parce que li ñu soxla tey mooy ko xam ne Sénégal ko ñor. wala ñoo xam ne Sénégal moo leen ñor. loolu la réew mi di xaar xaaratuñu ñoo xam ne mun na am cinquante ans d' expérience te fekk na cinquante ans yi cinquante ans yi li mu doon def jubul. Mhm. donc loolu du ci dara dafay gën a tax rek ku ci nekk vraiment mën a jouer rôle bu essentiel. ba nit ñi mën a sentir li régime bi andi. Mhm. Euh, dund bi wàññeeku jafe-jafe wàññeeku euh, ñu am jàmm am sécurité mën a am aussi accès ci service public de manière facile aussi de manière aisée. justement dund gi yaa ngi koy wax léegi la premier ministre wax na ci euh, par rapport attente sénégalais yi parce que nee na dinañ ko wàññi mais nag pour que ñu mën a am wàññee bu sax wàññee bu mën a amal njariñ askan wi il faut que ñu moom suñu bopp ci wàllum dund ak yu ni mel. loolu da nga ko ciy rejoindre naturellement mais ça demande du temps peut-être que les Sénégalais non ne veulent pas pour le moment donner à régime ndax ni ñu ni ñu sonnee ci dund gi. waa dund bi moom euh, euh, jafe-jafe yi yàgg na ci wàllu dund cest parce que dañ koy rappeler souvent ci ñaari euh, origine la am ñaari origine mm-hmm. benn bi mooy Sénégal li muy dund lu bari da koy importer. Mm-hmm. li ci des ci wàllu énergie aussi dañuy importer parce que Sénélec bi nga xam ne. moo ñi euh, produire électricité tey euh, fuel bi mun naa ne dañ koy importer wala SAR daal di defar fuel euh, à partir de produit bruts daal di koy livrer sous forme d' électricité au Sénégal. loolu moo tax pourtant le régime a tellement que mën ko jaay la sous-région. waaw loolu bon. marketing la woon rek <laughs> mais ñun xam nañ ne. Hmm. SAR ci boppam tey. mënul couvrir cent pour cent du marché sénégalais. du pays waaw obligé dem di importer. bi ci yi xam nañ ne coût importation yi dafa cher. Mhm. ndaxte fret bi da koy fay. baril bi aussi moins de tension géopolitique. da ngay gis ne dafay am influence ci prix yi. Mhm. lépp yokku donc loolu yëpp mën na dax nu muy daxee mooy d'abord ñu commencer ci dund bi il faut mu am ay efforts yoo xam ne suñu commerçant industriel yi dañ ko def ci prix yi ba mbir wàññeeku. Mmh. état it du ñàkk mu def ci effort ndaxte xam naa ne le temps que ñi am yenn autonomie euh, yenn jàppale askan bi ci prix yi ak subvention yi mënul mmh. ñàkk euh, bi ci des aussi euh, ñu fexe en fait ba auditer li nga xam ne mooy njëkk yi nga xam ne moom la Senelec di jaay courant bi mmh. parce que statut tarifaire bi Euh, ça pose problème d'ailleurs FMI wax na ko jàpp nga ne courant bi mën na wàññeeku gën a wàññeeku na wàññeeku bu ñu auditer structure tarifaire bi mën nañ ci génne ay marge yoo xam ne sénégalais yi dinañu gis ne njëkk yi mën na wàññeeku li ci des nag mooy ci li ñu jëm mm-hmm. euh, pétrole ak gaz bi nga xam ne mm-hmm. moom la ñu yàlla baaxe ñu commencé di ko di ko exploiter gis nañu euh, la dernière fois l'infrastructure qui vient d'arriver euh, au niveau en tout cas du nord loolu dafay tax aussi Euh, nit ñi am yaakaar dafay tax mm-hmm. aussi investisseurs yi gën a ñëw mm-hmm. mais dafay tax aussi njëkk yi nga xam ne moom lañ daan euh, vraiment di di supporter ci wàllu énergie dina wàññeeku bu baax a baax mm-hmm. mais il faut ñu am raffinerie aussi du ñu jël pétrole bi rek brut comme ça di ko jaay war dafa ànd ak ñu am ay raffinerie pour l'or aussi pour l'or effectivement am ay raffinerie yoo xam ne dinañu mën a vraiment euh, servir ñi ko soxla. Mm-hmm. usager yi ful. parce que la mal du euh, Sénégal mooy le pêcheur aussi vraiment euh, bi ñuy génnee réew mi après ñu koy indiwaatal ci produit fini boo xam ne ça nous coûte très cher. exactement mm-hmm. produit fini yooyu wax ni ma ne koy booy dem géej tey nga nekk pêcheur soxla nga vraiment essence pirogue. boo xamee ne wàllu usage domestique la ful transformé boo xamee ne aussi entreprise soxla nga énergie. Mm. ñëpp a ko soxla. c'est vrai ñëpp a ko soxla maintenant nag raffinerie yi. mooy permettre tey ñu mën a am ces produit finis. Mm-hmm. il nous faut des raffineries. te loolu bokk na aussi. mais est-ce qu'on a préparé ça est aussi maanaam la main-d'œuvre les compétences parce que souvent on fait euh, euh, on ko wax sax euh, dañuy wuti ñi nga xam ne ñoo koy def alors que Sénégal les Sénégalais son à l'extérieur di ko defal foofu les mêmes pays. waaw appel à compétence ak mise à disposition des ak engagement patriotique bi. Mm-hmm. Euh, am na déjà sénégalais yu ko am ci biir Sénégal te ñu ngi ci secteur yooyu di liggéey. Mhm. xëy na fësuñu. il suffit juste de les identifier mais il suffit juste les identifier ñu ngi fi. Mhm. ñu nekk à l'étranger aussi ñu bëri dañuy manifester vraiment besoin ñëw fi mais am na leneen lu koy mottali. mooy ñu fexe ba filière yi nga xam ne progressivement ñu koy mettre en place ci secteur yooyu wàllu gaz wàllu pétrole. Mm-hmm. ñu fexe ba filière yooyu mettre à la disposition du secteur. compétence yu ñu soxla. Mm-hmm. compétence ak xarañ bi nga xam ne moom la liggéey yooyu laaj. loolu nag dafay laaj aussi vraiment une réforme en profondeur dafay laaj euh, ñu généraliser genre enseignement yooyu. Mm-hmm. préparer aussi les plus jeunes à la base ba bu ñuy egg à maturité en termes d'éducation. danañu mën a am compétence yëpp habilité yëpp ak xarañ bi nga xam ne moom la pétrole ak gaz soxla. une autre bombe à retardement mooy le foncier. jafe-jafe bi euh, yàgg na jiitu na régime bi mais dañoo ñëw jël ko euh, à bras le pour indi ci ay solution le premier ministre tey rek mi ngi koy wax ci euh, benn arrêté bu ma bu ma juumul fexe ñu arrêté li nga xam ne moo soxal les travaux yi nekk ci littoral bi pour saytu ko xool ko foofu aussi jàpp nga ne c'est une bonne chose effectivement parce que ñëpp gis nañ ne corniche Sénégal littoral bi fépp foo demee du Dakar rek dafa changé mhm. da ngay jékki rek gis ay tabax yu jóg finalement xale yi sax bu ñu bëggee. Euh, def euh, sport def sport wala def seen activités yi. Mhm. duñ ko mën a ci def. c'est maanaam dafa am une catégorie yoo xam ne dañu approprier wu les littorales te loolu dafay toucher sax la souveraineté. Mhm. parce que bu ñu nee état c'est le pouvoir mais c'est aussi la terre. Mhm. mooy aussi les ressources naturelles. et c'est important que ñu am un esprit de partage de ces ressources parce que bu dul ñun génération yi ñëw dañ koy soxla. deuxième aspect foncier bi da ngay calculer Sénégal démographie am dafa xaw gaaw euh, suñu euh, taux de de croissance démographique ni muy magge euh, c'est très rapide mm-hmm. te tey bu ñu amul une prévisibilité am aussi vraiment benn esprit bu xaw a yàttu ci wàllu séddale suuf ak surtout en fait un sens de la responsabilité ci ni ñu koy gérer di nga gis peut-être dix pour cent des Sénégalais accaparé suuf si mm-hmm. acte yooyu moom la président posé à Thiès Mbourkat leen lii mënul nekk mhm. dañuy revoir partage bi euh, mënoo nekk citoyen quelque que soit qui tu ñu jox la ay treize hectares wala dix wala cinq hectares fekk na waa dëkk ba sax amuñu c'est vrai euh, d'autre part aussi euh, maire yi nga xam ne jox nañ leen ñu fexe ba yaatal ci citoyen yi mhm. citoyen mën ci jot parce que bu ñu la joxee suuf du pour yow Mm-hmm. mais c'est du pour ay surtout say conseils mais c'est pour les citoyens mm-hmm. et citoyens yi euh, doo xool ndax xam naa leen wala samay militants ñag déedéet mm-hmm. citoyens yi mooy ñi nga dëkkal mooy ñi ko soxla ñi néew doole ñi am jafe-jafe ñi am ak ñi amul ñëpp ah. ngay boole ku ci ah. nekk nga jox ko war wërsëgam ci wàllu suuf ah, bu weesoo coowal suuf bi feeñ Cees Euh, lan lañ ci mën a jàngatee parce que boo seetloo Dakar dafa dafa fees jam ñaajoo investir nañ fa xaalis mais ñu bëri na suuf si baaxul donc Thiès tey jii nii euh, bu ñu ko defaree xëy na ëllëg mën na euh, capter lu bare bëri loo xam ne doon na doon na ñëw waaw Thiès sax mu ngi bëgg a mel ni dakaar mm-hmm. parce que boo xoolee yenn quartier yi mu ngi commencé di fees. am na commencé am problème mobilité. il de nouvelles villes. Mm-hmm. il faut de nouvelles villes bu ñu xool rek ci axe ouest bi Thiès Dakar Dakar Thiès dañu war a jéggi. dem ba au centre du Sénégal. Kaolack par exemple Kaolack. Diourbel euh, Mbacké euh, Touba Touba sax commencé na fees aussi. Mhm, mhm, mhm. ñu fexe ba am de nouvelles ville de nouveaux pôles d'habitat yoo xam ne dina am lépp li nga xam ne moom la dund doomu aadama soxla courant ndox assainissement surtout. pour éviter inondation yi fii am. ak aussi ay espace de jeu parce que tey Dakar di Thiès boo xoolee ni ñuy dundee dafa xaw metti espace de jeu espace aussi de de de de yi nga xam ne moom la citoyen yi war a am. parfois même des espaces de culte. Mm-hmm. mais duñ ko am. c'est très difficile même espace vert daanaka bëri espace vert yépp yi nga xam ne day tax dund dund doomu aadama euh, aéré xaw a xaw a tane dootuñ ko am. te loolu il faut ñu am vraiment une généralisation des actes. Mm-hmm. parce que quand les modèles les plus réussis ba léegi ce sont les les zones d'aménagement concertées. Mm-hmm. zones d'habitat concertées ZAC yi. te ZAC yi eh, gis nañ ne par exemple bi am Thiès c'est un modèle. waaw def nañ fa lépp lépp nga lépp nga fa. Mhm. loolu buñ ko généraliser démocratiser accès bi dina indi vraiment euh, wàññi jafe-jafe yi ci wàllu habitat bi ci des aussi ñu revoir les procédures foncières. Mhm. procédures foncières dafa bari corruption. corruption bi il faut ñu lu mu metti metti administration bu ci mënt impliqué il faut ñu guère ko. dindi corruption dans le secteur foncier. li nga xam ne aussi moo ciy laxasu ngay gis soo xam ne ah responsable la mu dem ba am ci ay dix vingt parcelle loolu si foog mu dax mm-hmm. parce que parcelles yi euh, nekkoo ne da nga nekk responsable pour akimoo parcelles yi danga nekk responsable parce que danga ci am role bu war a jouer après citoyen nga xëy na war nga ci am mais waroo akimoo li nga xam ne pour waa dëkk bi la. Mm-hmm. te jafe-jafe yooyu nekkul ci Thiès kese boo demee Mbour. foofa gën a doy waar. Mm-hmm. bu yàggul dara la ñuy euh, wane ci à travers des documents probants euh, benn euh, intégrateur bu ñu yox quatre-vingt-dix hectares ne ko quatre-vingt-dix hectares yi mën nga cee béy te fekk société bi ñu ko jox société bi mu ngi yëngu ci wàllu informatique hmm, incohérence yooyu incohérence il faut ñu hmm, corriger ko hmm, c'est la même chose aussi pour port bi ak aéroport bi parce que port rek aéroport li ñu yóbbu ci suuf bari na te fekk soxlawuñu loolu en réalité da ngay gis ay six cent hectares quatre cent hectares yoo xam ne en réalité doyewuñ ko dara dafa am loo xam ne daf ci lalu loolu yëpp euh, ñu ngi invité président de la République xam na ne xam na ko il a toutes les hmm. informations mu fexe ba dindi dindi mesures yooyu hmm. assainir ko Euh, fexe ba population bi mën a am fu ñu dëkk. mën a jël liñ moom une dernière question euh, en une minute rek euh, agriculture naka lañ ci mën a tirer euh, profit ba mu jëriñ Sénégal les régimes précédents ont essayé Wade Gowana Reva lu nekk Prodac bi passé mais jusqu' à présent potentiel bi ñu am exploité bu ñu ko. waaw agriculture déjà li ma doon wax ci début bi mooy gouvernance bi. Mhm. gouvernance bi déjà il fallait ñu améliorer te moom la ñu commencé nii ba ñu nee gouvernance mooy déjà li ci gën a am solo mooy jot ci suuf si parce que jot ci suufu bay dafa am solo mm-hmm. bi ci des mooy ci wàllu semence yi euh, jiw bi bari na loo xam ne doo ci laxasu euh, ñi nga xam ne dañuy bay dañuy jënd béykat yi mais pour ñu jot ci semence yi c'est tout un problème mm-hmm. ndax daf bëri intermédiaire ay opérateur ak yeneen ak yeneen jotuñu suuf si jotuñu semence jotuñu suuf jotuñu semence euh, loolu fexe nañu ba dindi ko parce que y a vraiment un processus qui est enclenché boobu nag tey euh, yaakaar naa dugal nañ ci militaire ci wàllu séddale bi mhm. fexe nañu aussi ba ni ñuy jëndee ni ñuy jëndee euh, jiw bi ñu leeralal ko nekkatul rek benn ñaari nit dañuy fexe ba ñu bëri jot ci ci ay conditions yu leer bi ci des nag mooy gën a dooleel vraiment béykat yi organiser leen en coopérative. Mhm. fexe aussi ba dugal leen ci wàllu contrat de performance. loolu boo leen yombalalee euh, intrant yooyu boole ci machines yi dina tax dinañu mën a dugg ci phase contractualisation. li Sénégalais yi soxla ci wàllu dund ci wàllu ceeb euh, ci wàllu blé. parce que blé bi gis nañu aussi conséquence yi. Euh, ci yeneen fànn aussi. ñu fexe ba sénégalais di ci jot en quantité te dootuñu importer. merci beaucoup waaw mais dafa am loo xam ne moo ko laloon mooy ñu améliorer gouvernance bi nga xam ne moo lal wàllu agriculture te processus bi commencé nañ ko te incha allah dina. jërëjëf sant bu baax a baax c'était un plaisir jërëjëf jërëjëf merci beaucoup Charles Émile Abdou Ciss moo nekkoon président di ko remercier ci disponibilité mais également ci leeral dig daje suba jàmm 19h30 laataa loolu c'est dans un instant Tabara Diop Djibril Diallo merci